Euh, jappelé len ci côté moyens yi nga xamné soxla nañ ko moy ay maillot ay ay jeu de maillot ay ballon ay coupe ak enveloppe vraiment jappelé len jeunesse bi nga xamné mo nek ci la zone sud parce que ñun politique bi ñi def ça concerne la zone sud ñu and ci ak mon ami frère Adama Gaye euh, nga xamné ñun ñoo and au niveau euh, de la commune de Mbour ci njàppalu monsieur le ministre des forces armées El Hadji Omar Youm parce que si nous sommes c'est parce que le ministre Omar Youm est motax

Euh, kon loolu mo taxone ñu mooy nekkoon sababu euh, euh, final bi. xam nga commune bour li fi nek comme ni ko bi di waxe rek la diversité des fleurs fait la beauté du jardin vraiment ku nek am nga droit nek ci li nga wara nek mais nak ben dénominateur commun la am muy son excellence le président Macky Sall kon ñoo def lenn lu dul xaccundo dorando, autour du ministre El Hadj Omar Youm mi nga xam moy coordinateur départemental bi jàppale ki nga xam moy suñu candidat bi nga xam mom la son excellence de la euh, le président de la république tànn muy Amadou Ba Amadou Ba moy candidat wu Omar candidat au département bi moy candidat wu responsable yi fi nekk yépp kon ci bir loolu rek lañuy woté unité comme mm, li ñu gis demb dal na suñu xel c'est-à-dire responsable yépp and xaccundo dóorandoo